téere bi euh, boo gisee ma bind ko mën nañu sabab bi lenn rek la euh, bi événement yi xewee juin bi passé après bi ñu àttee affaire Adji Sarr ak Ousmane ku ne gis na ci ñàkk seen bakkan ku ne gis na li ci xew ci ay yàqu-yàq ku ne gis na li ci xew ci ay gaañu gaañu ku ne gis na liñ wala dégg nga liñ ci wax ci yëkkati ci ay kàddu te mu doon loolu ni naxasal na république néewal na ko doole wala indi na euh, tolo euh, ay jafe-jafe ci biir réew mi euh, bi loolu xewee nag ma wéet ak bopp ma ni kat li waral lii du ñàkk man am na lu ma ci xam te sama liggéey mooy jéem a leeral mbir kon naa ci jëf ay jéego ngir kat dinaa mën a wax askan ni loolu nii dañ ci mën a téye ni kat mbir mi waral coow li lii moo ci xew moo tax ma def ab ab gëstu Euh, ndax am na lu ma ci jotoon a xam euh, balaa boobu ndax ñi nga xam ne ñoo ko seq am na ñu ma ci dajal am na ñu ma ci gis am na ñi nga xam ne yàggal naa ànd ak ñoom di gis ci biir livre bi euh, lu ma ci nettali ci lu bari te aussi gis ngeen ci ñi nga xam ñoo nekk ci mbir bi ñu ko seq ju ci bari yàgg nañuy wax ñuy dégg yàgg nañoo wax ci ñoom wala yàgg nañoo dégg ñuy wax kon nag bind livre bi jafewuloon ci man waaye bi ma koy bind dama ni kat lii na Sénégalais yi xam lu ci xew lan moo wundu lii ak la ko waral ma jàpp ni tamit am na ci ka nga xamee ni mooy ndey bi liggéey muy aji Sarr saaga nañ ko xas nañ ko wax nañ ko lu ne ay moroomi baayam ay moroomi yaayam ay moroomi maamam wax nañ ko lu ne te xamuñu ko mosuñu ko gis wala mosuñu ko dégg ma ne nag ku mel nii nag dëgg-dëgg te xëy na li ko waral mooy doomi kenn du doomi kenn ku ñu xam xëy na néew dooleem la ak boo euh, tax kay lu ñu yëkkati teg ko ci kawam ma ne nag ku mel ni kat jar naa jox kàddu wala jar naa déglu jëkk naa dajeek Adji Sarr bi mbir mi soo ko xew yàgg na wax naa ko yëpp xam nañ ko ba ma waxtaanee ak moom mu wax ma li ci nekk ba ma ca génne dama ah xale bi de jar naa déglu jële bi xale bi de jar naa may nopp néew ma li mu wax dama koy jox dëgg tax du man may àtte waaye kat jàpp naa ne que ku taxaw li def nañ man mbir taxaw ca fa nga taxaw ba mbir ma xawee ba léegi mosoo ci changé ku ko mas a dégg la mu wax démb ak bëgg dem la mas a wax bu amee kenn ko wax leen kay mooy xëy ne ñenn ñi ko seqal waaye moom la mu doon wax mos cee jóg ma ne kii kat jar naa déglu loolu nag moo indi tey ma indi euh, ci livre bi témoignage ba nga xamee ni que ay heure d'enregistrement la ya nga xam ne moom moo wax ci dundam ay jaar-jaara ba mu juddoo ba ni mbir bi xewee ak ak nu mu ko dundee kon loolu mooy sababu livre bi képp ku ko ci liir jàpp naa ni que di nga ci am loo ci jëlee loolu laa ci ñaan. ñu dégg la rek nga wax sant ne livre bi xool xooloo nga ko ñi nga xam ne ñoo ci avocat ñi ñi di wax ndax def nga la boo gisee dama ni lu mel ni ku koy bind doo ci doo fowantu da teg la nga xamee ni que ku ko gis doo ci am loo ci mën a euh, diingat moo tax am na ay journalistes yi xëy dama bi ma jàng bi ma ko paree dama leen ni xoolal leen ma lu ngeen ci xalaat ay juriste ay journalistes yu nekk Sénégal yu nekk bitim réew ki nga xamee ni moo nekk déclaration di Adji Sarr def na déclaration euh, ba nga xamee ni transcrire nañ ko bu nekk ci livre bi bi ma paree avant may dem imprimerie jàpp naa ne rafet na may yónnee ko ko par le bier de avocat ni ko kat livre baa ngi noonu xool leen ko bu ngeen ci amee lu ngeen ma ci wax ngeen wax ma ko ci kooka teraanga la wala teggin la wala ab cër la ba nga xam ne jox naa ko ko Euh, loolu wax dëgg yàlla def naa ko te ñoom aussi amul luñ ma ci euh, avocat bi dellusiwaatul ni ma lii baax na ci wala lii baaxu ci wala lii et kon information la jox naa ko ko euh, partagé naa ko ak moom comme ni ko partagé ak ñeneen lool boo gisee aussi xam nga boole nit ki wax na wax na wax na xam nga journaliste nga boo defee nag ak nit interview sax wala nga retrace ay propos la professionnellement laaj na léeg-léeg nga ni ko tax propos yi ndax validé nga ko hmm? loolu def naa ni professionnel journaliste bi rek war na xam lu mel noonu. itam parce que defuma transcription ay interview Ousmane Sonko dama jël ay déclaration Ousmane Sonko ay déclaration publique euh, ci seeni télévision ak seeni rajo ak journaux loolu moo tax defuma loolu. nañu wax ni jamono ji république Sénégal yow ci sa bopp boo pose question da nga xam ne que loolu moo xew. xam nga ni Sénégal mosu fee toog homme politique bu taxaw ni président bi dama koy rey mbaa mu rey ma amul homme politique bu fi mas a toog ni nañu dem palais ba deux cent mille jeunes génnee président bi nga xam ne dañu koo fal amul homme politique bu fi taxaw ni buñ ma buñ ma bu ma bokkul élection élection du fi am amul homme politique bu fi wax ni gendarmerie saaga gendarme gendarme tribunal saaga police saaga armée saaga journaliste bu amee homme politique bu ko mas a def Sénégal yi ne ma diw la ku dul Sonko kon Ousmane Sonko moo taxawee euh, taxawaay boobu moo wax wax jooju moo jëf-jëf jooju moo tax na mën ci duut baaraam ni bu dee danger am na ci réew mi kii la te kon nag ku nga xam ne war ngaa défendre république war ngaa taxaw jàkkaarloog moom Ousmane ko fi taxaw ni damay jël deux cent mille personnes yóbbu leen palais wa ñu génne Macky Sall am déet bu ko waxul rek ne leen ma waxu ko wax na ko am waxu ko moo fi taxaw ni que magisaal dina ma rey mbaa ma rey ko wax na ko ko moo fi wax ni tribunal c'est corrompu moo ko wax am ko moo ni yéen journalistes yi vous êtes des corrompus boo ko wax am waxu ko moo ni magistrats yi avocats yi police gendarmerie tribunal c'est des corrompus et ils sont dans un complot contre sa personne et que pour moom mu ni kon institution yi duñ fi institution yi fi war a respecté moo ko wax ñëpp di ko dégg mu taxaw fii mu ni élection du fi am bu ma ci bokkul kon kooku menace la ci république képp ka nga xam yaa ngi défendre république nag te jàpp naa ni bu ñu boole sama bopp ci ñooñu war ngaa taxaw ni ko loolu nga fa wax duñ la bàyyi nga def ko. non enfin yàgg naa bind lu jitu tey di dénoncer loolu def naa ni boo xoolee depuis euh, at yu bari maa ngi def ay chronique di artu ci loolu di ko dénoncer. wax naa la ni la bu fekkee déglu nga li ma waxoon nii bi événement bi jéggi dayoo nag amee février juin bi passé nga xam ne am nañ ci lu plus de vingt morts man nag nañ taxaw nag xalaat naa ni war naa mën a bind livre rappeler sénégalais lu xew indi leen ay éléments information moo tax ma def loolu.